C'est pour moi un immense plaisir de procéder aujourd'hui au lancement du nouveau logo de la Loterie nationale sénégalaise en remplacement de l'ancien logo vieux de près de quarante ans. Cette étape emblématique constitue un tournant historique dans la vie de la LONASE. Elle traduit la volonté de symboliser la véritable image de notre entreprise et de contribuer plus efficacement à son rayonnement sur le plan national et international. lancé depuis le début des années 80 sous l'égide du doyen Tcherno Birahim Ndao, ancien directeur général, le logo actuel a donné une très forte notoriété à l'institution et à ses produits. Il a le mérite d'avoir fait son temps en transcendant plusieurs générations de produits en allant de la loterie traditionnelle au pari foot, en passant par les jeux de grattage, les jeux virtuels, le loto, etc. Ce logo a également survécu au changement de paradigme du fait de la transformation digitale amorcée par la LONASE depuis seulement quelques années. Ainsi, en décidant de le changer, nous cherchons à donner à notre entreprise une identité visuelle plus moderne, plus valorisante, plus dynamique et plus cohérente. Le nouveau logo que j'ai l'honneur de lancer aujourd'hui a fait l'objet d'un processus enclenché depuis le mois d'août 2020. Un challenge a été organisé en septembre et a abouti à la sélection de la nouvelle représentation graphique de la LONASE. C'est le lieu de remercier tous ceux et celles qui ont participé au concours de design. Sur ce, je déclare officiellement lancé le nouveau logo de la Loterie nationale sénégalaise. Je vous remercie de votre aimable attention. asalaamaaleykum mbokki Sénégal ñëw nañ fii tey di leen yëgal lu bees li nga xamante ni moom la loterie nationale sénégalaise di LONASE indi muy coppite màndargay LONASE mu doon lu bees loo xamante ni dafa méngoo ak orientation yi bees yi nga xamante ni moom la kër gi jël maanaam gën a moderniser l'ONAS gën ko fexe mu dëppoo ak jamono te ku nekk euh, xam na ni li wolof di wax naan lu waaye di wuyoo da koy niroo moo tax l'ONAS tey dafa tànn gën a dëppook jamono gën a ànd ak jamono ci xàmmeekaay bu bees bi nga xamante ni moom lañ ñëw tey pour lancer ko lancement logo bii nag dafay ànd ak yeneen initiative ak yeneen jublu ak yeneen mébét yoo xamante ni Lonase fas yéene na ko ci at yii di ñëw maanaam mooy fexe ba koom-koomu Lonase gën a naat waaye aussi xaalis bi nga xamante ni ñu ngi koy am ñu utiliser ko ci li nga xamante ni moom moo ñor Sénégal moom moo ñor askan bi waaye daal ñu jàpp ni bés ki tey Lonase dafa indi beneen xar kanam bu bees ci wàllu biñ koy xàmmee mu doon loo xamante ni lu ñu liggéey euh, euh, ñu bëri ñoo xam ne dañu intervenir ci loolu ndax bi ñu xalaatee ni dañu jot na tey ñu ñu changé euh, xàmmeekaayu LONASE bi dañoo def concours ñu bëri proposer ay logo ñu tànn ci bi nga xamante ni moom lañu leen di présenter tey te yaakaar nañ ni dina neex sénégalais yi dina neex usager LONASE ñu ngi leen di gërëm di leen sant.